doon na ab défi bu rëy ngir Sénégal atteindre objectif de développement durable ci xayma wu UNICEF ci atum 2022 fukki xale yoo jël ñeent yi jànguñu lekkool loolu tax ba commission bu ñu jagleel éducation jeunes sport ak loisir ca pencum ndaw réew mi amal benn lël ab UNICEF ngir waxtaane ci ci budget mu éducation ñu gërëm leen ci lii nga xam ne tey nangu nañ ne ko ubbil ñu bunt boo xam ne ñun député yi nekk assemblée nationale dinañ ñëw weccoo ak ñoom ci li nga xam ne moo jëm ci budget Sénégal bi nga xam ne moo jëm ci wàllu éducation. ay fan rek des ngir marathon budgétaire bu atum 2024 loolu bi doon lu am solo ngir ñu càmbaraat boobu le secteur. tey boo xoolee budget bi ñu jëm nii 2024 909 milliards la 909 milliards boo ko saytoo ci budget généralu état mooy 30 pour cent au budget bi mais boo xoolee ci biir 909 milliards yooyu 828 euh, milliards yi. ñu ko jagleel peyooru enseignant yi. bu ñu sukkandikoo ci représentant wu UNICEF. naam gouvernement bu Sénégal def na ay jéego waaye war nañoo jooyanti nañuy dugalee xaalis bi ci njàng mi. c'est souvent le waaw li nga xam ne tamit daal moo soxal nit ñi mooy fexe ba ñi nga xam ne kat euh, ñoo ko daal di soxla daal di koy gën a am lu ci demeen rek euh, ñi nga xam ne ñoo ay ndongo nekk ci euh, daara yi ñooñu tamit war nañ leen gën a mën a jàppale bu ko defee tamit investissement yi mën a gën a jur njariñ. intégré dans le système éducatif. gannaaw bu ñu nemmeekoo ay défis yu bëre ak i incertitude UNICEF. fas yéenewul noppi benn yoon ci jàppale gi muy jàppale Sénégal ak i partenaire technique ak i financier ma ngir njàng mi mën a yomb ci bépp sénégalais.